asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent sallallahu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér di ko ñaanal tawféex ñu ngi nuyu Sénégal yëpp nag di ci jiital Cheikh Mbacké Ndiaye tey dañu ñëw si les facteurs déclenchants de l'asthme xam nga asthme moom lañu bëgg aborder waxtaane ko mais dafa am ñaari mbir yu si jaaxal nit ñi.

de telle sorte que li yaram yi subir dafa bari nit ñi aussi seen alimentation industrialisation bi tax na li si ëpp gras la mu yónnee nii produits laitiers yeeg yàpp beeg graisse nit ñi koy jël lu bari au détriment des légumes et fruits yi nga xam ne moo ñu waroon a dimbali muy légumes yi ak fruits yi ba tax na loolu bokk na si yokk asthme bi di beneen bi mooy environnement bi d'abord pollution bi muy saxaru oto yeeg moteur yi ak usine yi gis ngeen yenn société yi buñ ko defee mel ni produit ciment bu ñu ko defee si yenn quartier yi gis ngeen li muy jur toujours si saxaar soosu bokk na si tabac parce que cigarette moom ñu bëri nañu yaakaar ne rek euh, ki muy ki koy tux rek lay gaañ mais li ñuy wax les fumeurs passifs ñi nga xam ne ñu ngi jige kii tux tey nooyi saxaar soosu ñoo kii tux ñooy am ñoo ñuy wax les fumeurs passifs beneen bi mooy li ñuy wax mbóot les blattes boo xoolee ak industrialisation société yi bari matériel bi bari te mbóot xam ngeen ne fu sedd la bëgg ak fu lëndëm ba tax na dañuy làqatu si machine yeeg si réfrigérateur yeeg yu mel noonu frigo yeeg yooyu dañ si làqatu loolu bokk na si li yokk mbir mi ak desu lekk yi nga xam ne ni ñu koy bàyyi si kër yi des fois dafay yokk day favoriser asthme boobu poussière bi ak même légumes yi nga gis nii sax des fois boo ko raxasul bu baax poussière bi si ànd dafay ànd ak ay li ñuy wax ay acariens acariens yooyu dañuy bokk nekk na si liy déclenché loolu di di di asthme kon dafay jaas alimentation ba noppi léegi li nit ñiy lekk gras te dañ boo amee asthme da ngay moytu gras ndax boo amee irritation sa estomac rek su remontée gastrique amee dafay déclenché crise asthme boobu.

dëkku taax yi sax bareetu noonu si si campagne bi kon jot na nit ñi vraiment fagaruwaat xoolaat dëkkuwaay beeg di vraiment désinfecté tey vraiment wàññi xeer nu mën a xeexeeg les déchets là si kàttanu yàlla ko defee yàlla mën nañ dimbali ba asthme bi reculer question yi ñaar la nit ñi tey bu njëkk bi mooy kii wàllu ulcère gastrique la dafa am ulcère muy góomu biir li ñu jëkk njëkk conseil mooy nga wut jinjër jinjër moom lu am solo lu mu ngi nii soo amee jinjër bi boo amee juróom doomu jéer yu toll nii rek nga haché ko wala nga gratté ko def ko si lu tolloog ndox boo ko yëngalee ba mu kii nga segg ko bala ngay lekk di daan si xel li kaas genn wàll kaas def lem lem nga koy suukar loo am suukar lem rek lay soo ko jëlee da xaar au moins 15 minutes soo ko kooku mooy tax lekk yi la noonu sonal lekk gi mooy acide yooyu du la lakk bi su ko defee nag soo paree loolu nga guy guy da nga koy wal ba mu nekk sunguf boo ko weeree wal ko mu nekk sunguf saa yoo lekkee ba noppi tibal kudd bu ndaw ba mu raase def si genn kaas ndox bu tàng yëngal bàyyi mu tegg seg naan si kàttanu yàlla dana dimbal si ulcère boobu question bu mujj kii daal nee na jàngal ko yor moo ko sonal muy hémorroïde li si ma joxe ay tegtal bari na bari na trop mais su fu njàndam ak lay dur nga wut nga jaxase ko soo lekkee tibal ko dum ndaw ba mu raase def si genn kaas ndox bu tàng yëngal bàyyi mu tey nga xent ko naan ndox bi tuut sunguf si kàttanu yàlla fu mu fekk hémorroïde fa ñu leen fii leen jotaay rendez-vous